salaamaaleykum mbokku internetu Sénégal euh, ñi ngi fii ci Wakaam ci kër euh, sang bi ci kër euh, ki nga xam te ni mooy Seydina Nabi Yàllaahu géey nga xamante ni nii mooy xalifa bi ci sunu sang boo xamante ni sunu maam muy sang bi Guèye fii ci Wakaam la ñuy ñëw ci këram fas yéene waxtaan ak moom ci xew-xewu jamono. xew-xewu jamono nag yaatu na waaye dañ koy bàyyi micro bi moom mu nuyoo après ñu soog a dugg ci waxtaan wi. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu ahlan wa sahlan di leen wax ngeen euh, dal dal jàmm fii suñu makkaan euh, Mawlana Mohamed euh, Nabi ibnu Mohamed Séni xalifatullahi fi adi bâtisseur de la mosquée de la divinité. ñu ngeen di ziar di leen baalu ax euh, di nangu tamit euh, suñu jotaay ak yéen macha allah jërë ngeen jëf. Euh, sang bi ñu bëggoon waxtaan tuuti ci xew-xewu jamono bi nga xamante ne nii daanaka léegi kilifa diine yi kenn joxatu leen benn gëdd kenn joxatu leen benn orma loolu ban gis nga si gis. loolu loolu loolu bokk na si li ma gën a métti wallahi métti na ma trop. parce que tey suñuy njiit nekkoon ay euh, ay kilifa diine yu mag ñu leen di euh, euh, wane si anam yu ñaaw a ñaaw si réseaux sociaux yi baaxul tey orma diine def ko andi addi si yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa wax ne laysa minna laysa minna man laa tuwaahir euh, kabirana wa yarxam saxirana yonent bi nee na bokkul si man képp koo xam ne amuloo orma si mag ñi te doo yërëm xale yi bokkul si man te soo toppee hadiisu yonent bi alayhi salaatu te alxuraan andi ko wa ma ataakum rasulu fa xuzuhu wa ma nahaakum anhu fantahu lii leen yonent bi andi jël leen li leen yonent bi tere bàyyi leen ko la yoon bi tere alxuraan moo ko tere la yonent bi santaane tamit alxuraan moo ko santaane respect fa baax si nit moo tax tey société bi mu ngi commencé yàqu parce que tey wax dëgg yàlla ni nga amee respect sa waajur bi la jur noonu nga war a amee respect tamit si kilifa diine yi xam ne seen ëpp cër ñoom kenn joxu leen ko yàlla moo leen ko jox su neexoon suñu borom subhanahu wa duñ fi toog xaj na si dogalu yàlla lañ fi toogee kon jamono war nañ seetaat bu baax seen taxawaay surtout seen taxawaay man su ma gisee ñu dal si kaw kilifa diine dafa may metti si anam bu nekk nag kon jot na ñun kilifa diine yi wax nañu guddi ax bëccëg ñu jël si ay mesures état bi tamit jàppale ñu ñu jël ay mesures sur loolu parce que tey voie de communication yi ñu utiliser ay YouTube ay WhatsApp di ko wane rafetul encore une fois beneen bi tam mooy ci wàllu euh, ñàkk tam ñàkk teggin gi euh, jigéen euh, daanaka léegi dañ koy dañ koy futti dañ koy maa ngi jégul sax ci kàddu gi waaye amatuñu benn ormatam ci jigéen parce que te jigéen nekk ndénk magasin wu suñu borom ñu koy ñu koy ñu koy exposé di ko wane ci yenn melokaan yu xaw a doy waar sutura gi ak wegg gi ci jigéen daanaka ñu bëri ñàkk nañ ko daal foofu dafa am am njàngale boo xam ne tey référence la si yonent bi alayhi salaatu wassalaam Aïcha référence la Khadija référence la Fatimata Bintu référence la si l'islam tey góoru yàlla yëpp ay jigéen ñoo leen meññ ba fi ñu toll ñu toll fa soo demee si si alxuraan mu ngi lay nettali sootu Mariama te jigéen la yàlla tudde ko saar macha muy sootu Mariama ba ko yàlla di tànn tamit yaa Mariama la ko wax inna allah istafaaki ala nisaai alamin yow Mariama tànn nañ la nga nekk njiitu jigéen yi kon jigéen ci biir société bi dafa am solo parce que jigéen tey moo jëkk a jàppale yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy Xadija moo ko jëkk a utiliser dans le commerce di ko jàppale di ko jàppale ba tey fii ñu àgg ñu àgg fa dëgg la ndaxte lu ñu wax kersa si mag ñi amoon nañ ko wante tey kersa amatuñ ko soo gisee téere yëpp nangu ne kers mooy genn wàllu ngëm dëgg la kers boobu moo amatul si jigéen ñi tey jigéen ñi ni ñu soloo rafetul ni ñu leen di wanee rafetul jaamu yàlla bi xam ne tey fi tey euh, nitu yàlla moo ko albati si kantanu suñu borom subhanahu wa te daa def lu ñaaw te seex benn nitu yàlla mu ne ko foo jëm mu ne ko damay fecc ji mu ne ko bàyyil fecc xalaatal sa borom xalaatal ëllëg li ngay fekk ji ëllëg sa diggante sa borom mu retourné bàyyi fecc lu nekk dañ na ko sono soosu nee nañ ne daana def mille rakka par jour kon tey histoire ay référence yu jigéen yu bare bare bare bare am na fi wante nañu moytu nañu moytu lëndëm parce que lëndëm euh, si jamono yonent bi aleyhi salaatu wa lëndëm euh, gën a woon na jamono yonent bi ñëw dindi fi lëndëm andi fi leer ñu demati ba axru zamaan lëndëm tàbbiwaat kon fu ñu jëm il est temps ku ñu taxaw réfléchir bu baax si fu ñu jëm ëllëg jot na kulukum raayin kullu raayin masulan an raaytihi il est temps ku si nekk nga nekk sàmm si sa kër ba tax na il faut pas que ñu bàyyi euh, li li tubaab di wax euh, le libertinage le déréglement des mœurs moom la tubaab di wax ne tey mars boobu kese boobu moo amatul. mais est-ce que loolu tam euh, réseaux sociaux yi les réseaux sociaux que joué ci rôle bu mag. ah kay réseaux sociaux yi bien sûr que ñu ngi ñu ngi ñu ngi dañuy yàq ñoom. dañuy yàq parce que li ñu wane récemment si ay fecc ay brésilien yu yu yu ñu yu ñu jéggaani bitim réew ñoo andi leen pour yàq suñu culture mais ay pexe seytaane la ay pexe seytaane la si xol yi ñoo dugg si xol andi fi loo xam ne bokkul si suñu aada bokkul si suñu suñu suñu suñu culture wax dëgg yàlla ne jot na nag ñu taxaw si ñu taxaw si parce que tey l'islam bi ñu koy yàq wax naa si benn jotaay benn kilifa diine ma ne ko la yàlla tere woon yëpp si alxuraan ni ñaa ngi koy def lépp lu yàlla tere woon si alxuraan yëpp ni ñaa ngi koy def ba alxuraan wàccee la yàlla andiwaale ay ay ay sart yoo xam ne tey alxuraan dafa tere lii santaane lii mais la mu tere yëpp ni ñaa ngi koy def laa tax boo zina ñu ngi koy def bu leen njaaloo ñu koy def xatala nafsi faat ba kenn ñu koy def waxul waalidey ni ŋañña say waajur nit ñaa koy def wa kaza wa ak yeneen bari na lubal lubal alalu alalu alalu réew mi alalu askan bi nag mooy sàcc mooy sàcc alalu jàmbur dinaa fi ñëwaat su ma duggee si déclaration Mawlana Mohamed seeni nitu yàlla boobu tey ak oteem ak tey fi mu jaar ba àgg si yàlla dinaa si ñëwaat parce que tey bokk na si ay déclaration mu wax ne bu kenn tooñ kenn si alalam bu kenn tooñ kenn si jabaram bu kenn tooñ kenn si doomam bokk na si ay déclaration dinaa si revenir wante la ëpp solo mooy askan wi la ñu bokk mbaa la la dénk bàyyi ko fa loolu mooy màndute nit dafa am lu ñuy wax taxawaa ragal yàlla googu moo lay animé ba tax na euh, da ngay ragal la sax tooñ sa borom subhanahu wa te loolu éducation la laaj sensibiliser sensibilisation la laaj tamit jot na ñun ñëpp ñu mobiliser wu di si wax di si wax di si wax. rapport IGE bi xam naa ne jot nga ci wala boog yaa ngi dégg ñu koy wax mu ñu nekkoon ci wàllu Covid bi Covid 19 bi nga xam te ni Sénégal bu nekk jël nga la nga am akus tuut participer ko ci pour que ñu jële fi feebar bi. nit ñi ñu leen tëj ci seen i kër génn génnatuñu ñi daan jaay reer guddi amatuñu lu ñu dundal seen njaboot ndaxte guddi gi maanaam restriction wu liberté yëpp amoon kenn dematul kenn dikkatul xaalis boobu ñu dajale woon ne xëy na pour fee xeex euh, feebar bi la xaalis bi jël gars yi jël ko tong-tong ko ci seen biir ay millions et des millions loolu ci xew-xew réew mi day na waar. milliard lay wax parce que yow yaa ngi wax million parce que c'est des milliards. mille milliards. waaw c'est des milliards qui ont été dépensés si biir Covid bi mais xam nga nit ki mën na nëbbatu morom mais mënul nëbbatu yàlla euh, ala kuli alit foofu la mbir mi nekk euh, alal suñu ko denkee da koy sàmm ak ku mënta doon su suñu dénkee alal da koy kan loo si dépensé te biir nga rendre compte population bi ñi nga xam ne tey fi tey ñoom nga doon gérer mais soo ko soo ko détourné à d'autres a ah si wàllu di moom lay wax parce que tey jub dinaa si revenir yàlla Mawlana moo xam seeni daf ko wax ne ko hôtel si njub hôtel si njub loolu bokk na si njub aussi ñu dénk la alal nga sàmm ko nga jaaree fi nga ko war a jaaree parce que lépp si éducation la ak ngëm ak taxawa mais su fekkoon ne yàlla yàlla dogal na ñun ñëpp ñu tegu fa yaakaar naa ne tey fi tey kenn du jël alalu jàmbur jërëjëf. Euh, sang bi euh, bu fekkee ni am na déclaration boo war a mën a def. ci réew mi sama déclaration bi may def euh, c'est par rapport à suñu journée de prière et de recueillement à la mosquée de la divinité le 23 bi décembre 2022 et le 24 décembre 2022 euh, la première journée dañuy def juma muy vendredi bi le 23 suñ fi jógee ñu julli salatu tasbiya suñ fa jógee ngoo gi ñu tesewaat fa def fa juma samedi tamit après vers quatre heures cinq heures dinañ fa def ay ñaan ah, li tax ñu sonn si di soññ ni jullit ñi ñu ñëw parce que tey adduna dafa fees dell ak bàkkaar lëndëm tàbbi na si jamono te lënd mu xol bàkkaar moo koy indi yëgatuñu yàlla amuñu repère ku xamatul foo jëm da dellu si alxuraan ak sunna parce que dañu nekk si ay perte de repère Mawlana Mohamed Sini dafa ñëw pour. Euh, jubale nit ñi ak suñu borom subhanahu wa taala jubale nit ñi tamit ak seen borom subhanahu wa taala si njub loolu la ko yàlla ooteel na ko ooteel si njub ooteel si taxawaa ooteel si aslaha Mawlana Mohamed Sini bâtisseur de la mosquée de la divinité jëmm ji si boppam euh, yàlla daf ko yéegal bi mu ko yéegalee ñaareelu asamaaw la ko yéegal mbokk jullit ñi ala kuli alin jàng ngeen alxuraan jàng ngeen ne Insa ibnu Mariama reyuñu ko daajuñu ko alxuraan dafa ne walakin shubbiha lahum dañ ko yégal alxuraan loolu la andi ñun lu ñuy wax dañ koy dañ koy dañ koy teg ci alxuraan ak sunna wa maa xataluhu wa maa wala ki ne subbixa loxoom rey ko daaju ko dañ ko yéegal ndax jëmm la ñu yéegal déedéet yéegaluñu jëmm leer la yéegal si ñaareelu asamaaw wax naa ne su fekkoon ne jëmm mooy yéeg des si asamaaw kon yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu duñ ko jenc si suuf leer moo yéegoon yàlla yéegal leer googu te leer googu matul woon mission bi jotul woon def mission bi yàlla yéegal ko parce que dañ ko doon bokkaale yàlla na ma wàcce waat ko si axru zaman Mawlana Mouhamed Seyni ne man yàlla yéegal na ma ñaareelu asamaaw dott ma leeru Insa ibnu Mariama na ma dangay ngay waat ñaari leer ñoo nekk ñaareelu asamaaw leeru Yaxya moo fa ne ak leeru Insa gëstu leen bu leen ko weddi gëstu leen. seet ndax benn leer moo fa des am ñaar ñaa nga fa ba léegi si ñaareelu asamaaw seetleen ko di ngeen xam ne benn leer bi wàcc na wante li may wax ne mbiru Insa ibnu Mariama de andi polémique parce que tey ñi koy oote dafa bari mais ku si nekk sa dalil il faut que ñu déglu nit ñi à seeni dalil pour xool exactement pour tirer la vérité dans cette affaire si biir loolu parce que tey jamono moo ko laaj ñu leeral nit ñi si lu si lu bëree bëree bëree bëree instant bi mu yé bi leer gi yéegee tamit ah, ñu am yéene yàlla am yéene wàccewaat leer gi leer gi kenn du ko kenn du ko donne si suuf foog tey kii donna leer gi yàlla day yéegal leeram sa ñaareelu asamaaw dott ko leer gi tamit leer ga fa nekk muy leeru instant am yéene wàccewaat ko ku la mënta wax ne leeru instant mu ngi si moom laaj ko fu mu doone leer gi laaj ko fu mu doone leer parce que leer gi kenn du ko doone si suuf leer gi dañ ko yéegal moom la alxuraan wax instant suy del si waat tamit du yor turu instant déedéet instant ma woon suy dellu si waat si leer yàlla day dogal tamit si beneen jëmm bu ko neex jëm bi mu yéegal ñaareelu asamaan kooku lay jox leer gi naka wàcci waat kon leer mooy yéeg mooy yéegoon leer mooy wàcci waat léegi nag leer gi su wàccee lan lay wax borom leer gi lan lay wax ak jamono su ootee yonent yonent diggante nit ñi ñu weddi ko ala kulli parce que yonent bi yonent bi alayhi salaatu ñëw na fi ba dem su fekkee ne tamit déglu nañ ko mu wax ndax moom ab yonent la am déet moom si wàllu boppam jëmm jooju dina tontu ne moom yonent la diggante max boroomam subhaanahu wa taala wante du ko uyoo diggante max nit ñi nay leer beneen mbir mi tamit mooy lan lay wax nit ñi si benn martaba lay lay wax nit ñi dina wax nit ñi ne leen man xalifatulaay fi addi la yàlla tappal na ko martaba xalifatulaay fi addi martaba xalifatulaay fi addi nag du ñëpp léeg ma dégg ay wax ñu ne euh, man yaamuruuna bil maxruuf wa yanhawna ani munkar xuwa xalifatallah loolu théologie islamique moo ko jàngale wante nañu bàyyi xel ne su ñëpp solee mbuubam xalifa fi addi tamit kenn la si yàllay waxal parce que kenn la kenn kenn moo koy doon te kooku dee am ndigal diggante moom borom subhaanahu wa yàlla fal ko muy xalifatulaay fi àddi donc instant su dellu see xalifa yàlla lay doon ala kulli alin ñi xam ne seen xam-xam nàcc si wàllu hadis xam nañ li may wax bu baax yonent bi junj na jëmm jooju ni sama xalifa lay doon sama gannaaw turam sama tur la ñooy bokk tur ñooy bokk turu yaay ñooy bokk pàpp pap ala kul añ kooku ñëw si gannaawam kon Mawlana Mouhamed Seyni bii ko yàlla dogalee mu doon xalifatulaay fi ardi yaayam aminat la la tudd baayam Seydina Daawda di Abdallah jaamu yàlla lay doon eh, ala kulli alin loolu Muhammad bi yàlla moo koy tudde Muhammad bindal ko ko si asamaa mu jàkkaarloo ak turu Muhammad bi yàlla tudde ko Muhammad kon nag méngoo na ak la hadis bi wax te yont bi junjee jëma jooju tamit mbokki jullit ñi bés baa ngoog bàkkaar moo tax ñuy julli salaatu tasbiya si à la mosquée de la divinité la mosquée de la divinité falaay jeexale cette mosquée est descendue du ciel en 1973 la jumaa ji wàcc si benn guddi saga bi gis ko ñu ne ko lii jumaa la dañ koy wàccee si sa jëmm topp ko sang bi topp jumaa ji mu jógee asamaaw di wàcc ba fii mu wàcc foofu si plage bi ba mu yeewoo tamit si nelaw yi décidé décidé plan bi toog di xaar ndigalu borom subhanahu wa parce que bëggul jiitu yàlla allah kulli alin ku mas a jiitu yàlla yàlla seetaan la ñii mas jiitu yàlla ñëpp yàlla def leen seetaan kon jamono jamono yàqu na parce que tey su ma gisee ñuy def ay pronostic si luy xew suba dina ma jaaxal l'exemple yii passé nii concernant la coupe du monde ña sa doon pronostiqué bari na tey ñi si wax dëgg bariwul tey ñoom ñëpp ay gisaani lañu ay pétaaw la ñu yor di wax ay lasaraar la ñu yor di wax mbokk yi fan lañu jëm où va monde nañu toog réfléchir xam ne tey euh, suñu violé lii subhanahu wa taala si biir alquran karim laa tuxadimu bayna yaday illaahi wa yus rasulihi bu leen anticiper bu leen jiitu seen borom subhanahu wa taala ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam mbokk yi alquran la nañu dellu si alquran ak sunna suñu bëggee suñu yoon leer masque de la divinité tamit loolu la fi nekkee pour sauver monde bi moo tax yàlla wàccee ko ba kay yàlla di waajal tamit sang bi def ne premier asamaaw laa ko gis benn baat na ma topp ko dañ koy wàccee soo ko toppee dina wàcc fii xam ne tey ñun yàlla fa la ñu tànn mu doon tey suñu sit buy abriter mosquée de la divinité doo loolu moo tax mu wàcc foofu mu nekk sang bi il a le temps de dessiner la maquette bi mu yeewoo bi mu yeewoo tamit bañ ko waree tàmbali bëggul jiitu yàlla on oh, dem na si papa Xaaji Ibrahima Sakho na ko papa mu ne ah mu ne ko mën de dama jot plan maquette juma war ko liggéey papa Ibrahima Sakho na ko dinaa boole sama architecte Cheikh Ngom il vivant bi Cheikh ñëwee sang bi yëkkati plan bi ñun duñu inventé dara. tey c'est c'est un lieu de lumière tey la lumière la mu ngi jaillir à travers le monde partout soo tiimee mosquée de la divinité di nga xam ne fii yaa yaa la lumière divine si biir parce que cette mosquée est descendue du ciel macha allah tey mu ngi parcourir mu ngi euh, mu ngi wër monde bi ni ñaa ngi fi ñëw di paas ay avion di ñëw di fi euh, di fi di fi recueillir xaj na yàlla moo leen di won mosquée bi ñu koy wër tey tey tey Sénégal mosquée bi fi ne euh, faveur la ngëneel la si ñun ñun ñëpp yàlla mënoon na ko wàccee feneen fudul réew mi ala kuli alin mënoon na ko wàccee feneen fudul réew mi mais tey yàlla kenn sañul wax ne yàlla wàcce na si wàcce na si man juma kenn sañu ko wax ku ko wax di nga ko waat kon mbokki jullit yi wax bi may wax yépp ñu ngi leen di jégalu bu baax xaj na ñenn ñi duñ comprendre wa man sha fal yumin wa man sha fal yukfir ku mu neex gëm ku mu neex weddi wante maa ngi ñaan mbokki jullit ñi buleen leen weddi mukk te seetu leen ko bu leen ko weddi te seetu leen ko su dee dëgg ngeen xam ne lii dëgg la su fekkee ne tamit dangeen ngeen jàpp ne te góoma ko parce que ku ko ku seet sa diggante sa borom subhanahu wa taala di nga xam ne dëgg la Mawlana Mouhamed Sini charia la oote si lislaam tey mbooloo mi ngay gis nii le mouvement Nabi Allah toutes les confréries yi ñu ngi si biir murid yaa ngi si biir tijaan yaa ngi si biir laayeen yaa ngi ci biir si innamal muminuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum wa taxwallah laalakum turxamoon tey nañu nekk benn nekk ay doomi mbay doomi ndey si lislaam jël sharia teg suñu teg suñu kanam suñu jëlee sharia teg suñu kanam dinañ mën a àgg inna akramakum inda allahi ataakum loolu la yàlla wax ki gën si yéen mooy kii ma gën a ragal man suñu borom subhanahu wa taala innal fadla bi yadi laahi yuuti man yacha wallaahu zul fadli azim beneen ngëneel la tamit yàlla ne ngëneel mu ngi samay loxo maa koy jox ku ma neex ala kuli alin bu kenn jàpp ne bu kenn jàpp ne yaa gën sa moroom ngëneel bi mu ngi suñu borom subhanahu wa taala kenn gënul kenn jot na aussi que nit ñi xam ne ku góor góorgóorlu fii mag ñi jaaroon ba àgg si yàlla ku fa jaar àgg si yàlla si njub ak sellal ak euh, macha allah ak euh, ragal yàlla fa la ñu mag fa mag ñi jaaroon daaw ñu tooñ kenn seen borom daaw ñu tooñ kenn seen jabar daaw ñu tooñ kenn seen alal ndeysaan da ngay xool ne yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam si biir gàddaay bi xam ne booba banque amul euh, dañ daa dénkaane seen alal si bi dañ daa ñëw di ko dénk ay alal mais ku ñëw dénk ka alal mu mu mu fas ko si morso morso boobu tamit daf koy téye jël benn morso jox ko jox la nga dem soo demee ba dellu soit bu indi sa morso mu xool dénkaane bi moom noonu la géré woon alalu askan wi te dara masu si yàqu si biir gàddaay bi dafa oo seen Alioune naka Alioune maa ngi de maa ngi dem maa ngi dem maa ngi gàddaay wante nu rek macha allah dénkaane bi seen borom a ngi fi waaw seen borom a ngi nii maa ngi ànd ak Aboubacar dem mais seen Alioune toog a xaar dénkaane yi su ñu ñëwee nga jox leen seen i dénkaane seen i dénkaane bëggul dem ñu ne yonent bi yóbbaale leen suñuy dénkaane c'est scandaleux tey la perversion gis nga euh, bari na si jamono tey xamuñu fu ñu amatuñu repère amatuñu repère donc tey euh, fi ñu war a jaar pour baax xam nañ ko ku fa jaar baax Mawlana Mohamed Sini wallahi fa jaar ba baax nen bi mu feeñee la ne sama loxo bi masul laal lu naxar yàlla sama tànk bi masul jéego jëm si lu naxar yàlla wakkaam ba wakkaam jiyee ku ma ku ma ku ma xamal benn tilim tilim mis xaala mi ne zul taxaw naa public wax naa la nga wax public ne man mas naa la toj il a géré la grande mosquée de Touba en tant que comptable la grande mosquée de Touba Mawlana Mohamed Seyni daf ko géré si jamono suñu maam Sëñ Fallou géré na ko benn ponte ma su ko fa jël pourtant y avait des des des na ponte yoo xam ne sax ay ponte de de de de de ramassage la mooy ponte yu baaxul yi xam ne da nga koy dëngal sax ma su géré na ko si ouvrier moo daa fay ouvrier yi en tant que comptable si jamono boobu avec la société OG frère daa fay ouvrier yi te benn dërëm masu si manqué koo xam ne amul contrôle à la grande mosquée de Touba saako xaalis la ko la Sëñ daa jox chaque jour ñu andi saako bu bees fees del ak xaalis sang bi géré ko ngoon mu fay ouvrier yi ba mu jeex mu delluwaat saako bi kë sëriñ bi masul jël benn dërëm si poosam dugal ko si poosam noonu la géré la grande mosquée de Touba la grande mosquée tamit bii tey almasjid rabbani mubarak mosquée de la divinité noonu la ko sanga bi géré ku ko mas a jox xaalis mu laaj la ndax maa moom addiye la am si biir biir biir liggéey bi la bokk soo ko waxee si biir liggéey bi la bokk biir liggéey ba mu def ko si poosu yàlla su fekkee ne da nga ko wax na ko bii maa la ko jox adiya si xol bu sedd mu def ko si poosam nee na masul manqué dépense këram ba jiwaat le poos ba jël si poosu yàlla c'est comme ça qu'il a géré la mosquée de la divinité sur cinq ans cinq mois ñu inauguré ko kon bu ñu naxante tey gestion des mosquées yi ngay dégg yu si ëpp yu si ëpp amul amul amul amul lu leer. bëri na xula xeex barki dem fii ci euh, mosquée bu nekk ci euh, amitié Mermoz ak euh, kii rek lu amoon na fa barki démb. jërëjëf. xeex bu metti parce que tey gestion mosquée yi. Euh, euh, dafa laaj dafa laaj mu leer dafa laaj mu leer. ma géré ay jàkka sax lu ci lu ay xula xeex loo xam te ni ma inna masjida lillahi la ñuy wax kay. waaw waaw mais xam nga ay question euh, souvent rek souvent ay ay enjeu di si am. sang bi de loolu la wax Malick sang bi def ne. masuma juwaale postu yàlla ak postu jumaa ji mu ne su ma ko defee nag su ma ko defoon te ma su ko def mu ne su ma ko defoon yàlla def na kii gëm na ma wante ragaluma ya su ko defoon mu ne yàlla def naa kii gëm na ma wante ragaluma parce que lu ñu askane ne yàlla moom loo ko yàlla moo ko moom soo jëlee alalu yàlla nag to tooñ nga yàlla lii la sang bi waxoon Malick jërëjëf. waaw. dégg nañu waxtaan wi euh, mbokki internet Sénégal donc waxtaan wi moo nekkoon ci ne euh, nañu am dellu ci suñu ay référence muy suñu ay mag magu diine yoo xam ni bàyyi nañu fi lu doy sëkk loo xam ni mat nañu euh, leçon suñu giiru dund nañu am suñuy référence te sunu mag ñooñu génn ñu alxuraan ak sunna donc euh, jum-jum yi fi nekk yëpp mooy euh, ñàkk dellu ci sunna ak ñàkk dellu ci alxuraan ginnaaw nag yàlla nattu nañu loolu ba xëy na yooyu am na jum-jum yooyu am na mën nañ ko rectifier ci mooy jaamu sunu borom comme appel bi ngay woo bi ngay woote nii euh, ñëw fii ci mosquée de la divinité jàmm yàlla raxas bàkkaar yi parce que bis boobu loolu rek moo ko tax a jóg kon mbokk internet yi ñu leen wax jërë ngeen jëf Euh, tey la woon fii ci Wakaam ñu doon waxtaan ak sunu kilifa euh, du sunu wasila muy euh, Mouhamed Nabi Guèye di leen jox di daje incha allah xam naa samdi mbooloo mu jullit ñëpp nañ fa daje. ajumale lay tombeel dinañu fa ñaan sunu borom. danañ fa danañ fa ajjuma la 23. àjjuma bii di ñëw danañ fa ñaan suñu borom danañ fa jaamu yàlla danañ fa toroxlu danañ fa raxas bàkkaar yi incha allahu kon bu ko kenn wutee ci kàttan suñu borom jërë ngeen jëf.